liggéey ak jaamu yàlla lañu wax moo tax seen site bi di Assalaamy TV na leen émission bu am solo di sama waax sama waax nag boo ko déggee jàppal ne ñëpp a ngi ci biir ndax tubaab bi nee na y a pas maanaam amul benn métier bu xeebu mag ak ndaw gox ak jigéen rawatina yéen nekk seen bërëbu liggéeyukaay di bay seen waar xam ne émission bi yàgg ko yéen di bëgg a fesal seen waax mën nga ñu contact ci numéro bi 77 147. 51 55 77 147 51 55 ngeen ànd ceeg seen xarit soxna Fatou Fall fii ci seen seen Assalaamy TV bu ngeen bëggee vidéo bu wàcc ngeen mën ci gaaw jot daw leen gaaw ngeen abonné wu ci te xaar ko fii ci seen seen Assalaamy TV.